naa wax ne Amet Diagne ak ñi mu àndal def ngeen tey posé ngeen acte boo xamante ni bi l'histoire retiendra bi ñu tolloo fii si yéen am na ay nit ñu am xalaat ñu am gis-gis ñu am vision

ndax Tëngéej ci histoire u Sénégal politique kenn mësul wax ñaari dëkk te du Tëngéej doo ko bon Tëngéej nag bu ñu ñàkkee cër ba ngeen di ko wax ci seen ñàkk déggoo la mais bu ngeen àndee nekk benn yàlla def fi jëm yàlla may ñu ndam lu ngeen bëgg bu ngeen ñëw ma defal leen ko Macky Sall moo ko wax pale keroog à partir de ce moment nag nañu wax ak ñëpp comme niñ ko tàmbalee nañu wax ak képp koo xamante ne yaa ngi biir yéen te intérêt tax la jóg ba nga ñëw ànd si lii ndax lii buñ si àndee di woy coordonné yore lii moo yor nangam dama ne comité électoral dimanche bii ñëw bu dellu see ba sa topp jeex na fa lay yem tàgg ku siy xëccug cëroo leen jiite jiite fukki fan ak juróom amul njariñ jarul xëccoo xam nga lu am solo ñu liggéey wax ak nit ñi ba le 31 ñu wateel président Macky Sall ba mu am victoire ñun waayeen nañu fexe ba ëllëg ñu ne ñii tax président Macky Sall am ndam am victoire ñun waayeen si lañ bokk bu commune yëpp andee lañu am wala lañu dajale ñun kenn duñu xeet te président Macky Sall dana naw lañu def loolu mooy tax ëllëg buy seddalee si biir Tëngéej président ñu fatte te lool la gis yi moom ngeen wax ngeen japp ne gannaaw ni tay and nañu pour gagner élection yi waaye nak ñun politique lañuy def def ñu ci élection bi rek yalla nak mo xam ëlëk li am waaye départ nañu si and pour gagner élection yi donc à partir de ce moment bu subaa

ñu ànd def proximité bi ñuy def ànd def campagne ba yàlla may ñu victoire